lii nga xamante ni nii mooy parti bi di PASTEF dafa soppi la doxilinam ni mu ko soppee mooy constitution bu senegal ci 2016 dafa indi ne parti politique yi kat am nañ lu ñuy soppeekoo ñoom ñu méngoog loolu raxas seeni texte indi banqaas bu bees boo xamante ne moo leen di saytu ñu ne nag bànqaas boobu ki koy jiite wala ñaar ñi ci nekk te bokkuñu ci. ñu bokkuñu seen parti mais ki koy jiite du bokk seen parti mais ñett ñi ci parti bi la ñuy bokk ñu ni bànqaas boobu noonu lépp luy élection ci parti bi moo koy saytu ñu ni dañu bëgg ñu defal leen des arbitrages démocratiques ci kaw loolu xam ngeen ni élection présidentielle jàpp nañ ko 25 février 2024 donc parti bii di PASTEF dafa bëgg dem ci joŋante yooyu pour mu dem ci nag il faut mu am candidat am ci loolu nag dafa waroon a organiser ay élection te pour ñu organiser élection boobu noonu kenn rek moo ko mun a saytu muy la haute autorité moom rek moo mun a aussi joxe baat parce que bu décider bu dogalee ñëpp dañ ciy tënk ci loolu ci la ñu organiser élection bi ba mu jur lu mu jur ma bëgg leen koo tënkal bi ci njëkk mooy dañuy wax ne déclaration la ñu bëgg a def lu tax ñu bëgg ko def mooy dañu bëgg a wax ne kat lii di parti PASTEF organiser na donc li nga xamante ne mooy ki nga xamante ni candidat bu war a doon partem bu fa war a nekk pour mën ko taxawal maanaam ki nga xamante ne moom la bëgg a ngeem ci loolu PASTEF dafa topp cot électoral bi parce que 46 départements yi fu si nekk dafa am coordination diaspora bi aussi boo xoolee huit départements la noonu la ko code électoral bi tënkee donc ci département yi nga xamante ni moo nekk Sénégal yëpp coordination yi dañoo voté bi ñu voté ñoom ñëpp. li ñu wax mooy le président Ousmane Sonko la ñu ngemb jébbal ko lenge yi pour mu nekk candidat ci diaspora bi aussi am na 45 pays yoo xamante ni Pastef foofu lañ ko représenté ñoom ñëpp dañu joxe ay procès verbal ñu tënk ko def ko ci huit départements ñoom ñëpp aussi dañu ne le président Ousmane Sonko moom la ñu désigné pour mu nekk candidat parti Pastef le 25 février 2024. ci kaw loolu nag bu loolu lépp amee tamit mbir mi nag dañ koy delloo haute autorité. ci loolu haute autorité saytu ko bi mu ko saytoo li ñu gis kat mooy procès verbal yëpp jox nañ ñu ko yi ñu jox ñu jot ko jël nañ ko ndaxte li ñu doon def dafa transparent ñi nga xam ni sax dañoo joxe procès verbal te dañu leen a joxoon date jox leen heure procès verbal bi ñu joxee nga xamante ni yegsiwul sax dañ ni mënuñu ko jël kon nga xamante ne haute autorité bi moom dafa indépendante de la direction du parti li mu jot ci surfrage moom lay càmbar xool ñu xool xam ni amul rature amul contestation amul benn benn gàkk-gàkk li ñuy wax sincérité ak crédibilité d'une élection ci loolu ñu xam ni kat xool def suñu enquête gis ni ñëpp ñi wote ci wot bu crédible lañ ko def parce que am na signature indil nañ ñu PV yi bi ñu xoolee loolu xool nañ ni ci coordination yëpp le président Ousmane Sonko moom la ñu voté parce que bu ñu fàtte ni benn candidat rek moo amoon muy benn candidature muy le président Ousmane Sonko ñi nga xamoon damoon nañ ko ci ay électeurs 1606 la ci 1606 yooyu ñëpp a voté bi ñëpp voté aussi kenn voté wu ci bulletin blanc le bulletin blanc ci Sénégal bu ngeen xoolee Pastef dafa transparent parce que même ot autorité dafay exiger loolu maanaam élection boo am benn candidat rek ci la ñuy mën a tegee bulletin blanc au Sénégal à côté mais su amee ñaari candidat rek bulletin blanc du am donc bi mu amee bulletin blanc bulletin blanc boobu kenn jëlu ko nul aussi amul maanaam mun na bañ a baax nga ñëw nga dugal ñaari kii wala PV bi am rature wala dara wala quelque chose comme sax donc loolu dañ ko teg de côté parce que zéro bulletin blanc donc bi ñu ñëwee ñu am surfrage valablement exprimé ni ñu koy jàngale man bi koy jàngale sax ak étudiants yi même bu ñu koy wax dafa yomb yéen ñi journalistes yi yéen sax yéen a koy jàngal nit ñi parfois jour élection bu amee suffrage valablement exprimé avec eh, nombre de votants la moyen bulletin nul fii zéro bulletin nul moo am donc dangay xam ni kon 1606 suffrage valablement exprimé léegi suffrage valablement exprimé boobu da boo ko xaree ci digg bi yokk ci benn ci ngay am la majorité absolue normalement sax warul woon nekk benn parce que cinquante virgule 001 la rek waaye xaaju voix amul moo tax da ngay am genn wàll gi plus benn voix ci loolu bi ñu constaté ci la ñu xam ne kii di président Ousmane Sonko matal na loolu waaye non seulement matal na ko waaye lépp li ñu voté moom la am sa à dire que pour cent la am ci kaw loolu nag moo tax haute autorité de régulation bu PASTEF ni kii nga xamante ne mooy président Ousmane Sonko bi ñu constaté vote bi xool ni mu déroulé ñu càmbar ko saytu ko xool ni kat lii opération democratique la parce que ci base bi la jógee ñëw ci kaw parce que PASTEF noonu lay doxee ci la haute autorité bi dogal nag dogal bi mu jël dafa ne kii nga xamante ne moo di président Ousmane Sonko juddu 15 juillet 1974 fële sa Thiès ba pare nga xamante ne benn nationalité rek la am parce que loolu aussi ñun dañ koy xoolaale ba pare nga xamante ni aussi am na tous ses droits civils et politiques maanaam dara tënk ko ci wàllu yoon pour mu mën a nekk candidat bi ñu saytoo loolu kat ñu ne moom moom mooy nekk candidat PASTEF ci élection présidentielle bu 25 février 2024 et ci kaw loolu la haute autorité dogal bi mu dogalee aussi ñun ñi nga xamante ne dañu doon siéger aussi à l'unanimité bi ñu xoolee donc décision bi donc noonu lañ ko jëlee donc ça a été décidé à l'unanimité d'ailleurs sax bu ngeen xoolee yeneen juridiction yi wala dara du wax lu ñu décidé mais nous en terme de transparence parce que dañuy def aussi comme feneen am na fa États-Unis bu benn juge d'accordul wala keneen day génn ni ma li ñu tuddee opinion dissidente donc du rek dañuy xool France ci wàllu justice ak wàllu yoon ni ñu koy doxee waaye dañuy xool ci dëkk yëpp noonu la parti Pastef di doxee noonu la ñu xoolee doxal ba nga xamante ni mbir mi amul benn gàkk-gàkk lépp a leer donc kii di président Ousmane Sonko moom ci boppam donc parti Pastef tabb na ko pour mu mën a donc nekk mbërëm ci élection présidentielle bi waaye nag proclamation résultat yi proclamation la bu ñu ko defee mooy kat jàpp nañ ni kii kat lañ désigné waaye officiellement haute autorité bi daf koy investir da ngeen koy gis ci élection présidentielle président bi bu conseil constitutionnel déclaré ni fal nañ ko taxul mu nekk gum président day dem prêter serment léegi nag investiture officielle boobu mooy genre prestation de serment boobu maanaam ci kanamu haute autorité la président son ko di taxaw ñu ne ko investir nañ la loolu nag direction parti bi ñoo koy donc définir wax ci loolu mais li ñu mën a wax daal mooy haute autorité bi décidé na te loolu lañ leen bëggoon a baaxe wane ni aussi transparence ci constitution bi lañ ko def ci préambule te loolu day tënk parti politique yi ndax article 4 bu constitution bi mooy wax la bon gouvernance associative des parti politiques di leen gërëm di leen sant